résidence xaadim rasoul bi nekkee ci Touba Darul ma naan de conférence bi nga xam ne sii di Naar jenn moo ko fiy liggéey ci ndigalu xalif général de Mourides liggéey bi léegi mu àgg gros œuvre bi noppi na bu yàgg jamono bi ñu ngi toll ci phase finition yi peinture décoration installation porte yi nga xamante ni ay vitre la ak yeneen yi nga xam ne ñoo ci aajow mboolem porte yi nga xam ne ñoo wër bâtiment bi installé nañ leen ba noppi. ouvrier yi saa su ne ñu ngi ci liggéey bi ngir terminer installation yi li nga xam ne moom moo di ventilo yi ci ëpp installé nañ ko mu des yenn rek biir salle bi lépp peinture nañ ko ba noppi installé carreaux yi décoration yi boo jëlee li nga xamante ni moom moo di escalier rampe yi monté nañ ko boo yéegee ci kaw am na fa ay salle yu fa nekk yoo xam ne benn bi nga xam ne ñu ngi ci installation yi maanaam file la yi nga xam ne ñooy nekk ci salle bi di nekk mooy ñi nga xam ne ñooy tekki ci ay kàllaama yu wuute waxtaan yi nga xam ne ñooy am ci salle de conférence bi boo génnee ci biti peinture bi ñu ngi koy wéyalee ne am na ci façade yu bëri yoo xam ne noppi na liggéeyub salle de conférence bi bañ ko dooree ak léegi matagul ñaari at ñu liggéey ko ci liggéey boo xam ne qualité la bu méngoog jamono mu nekk salle bu aéré boo xam ne dana jël lu toll ci junni ak téeméeri place salle de conférence bu ne mel dëkk bu sell bi di Touba woon nañ ko lool ci conférence yi nga xam ne ñoo fi am cérémonie ak yeneen jotaayu waxtaan sëriñ di Naar Diène mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Baara Diène te yor liggéey bi ndigal li mi ngi bàyyi ko woon ci sëriñ Sidi Maxtaar Mbacke nekkoon fi xalif général des Mourides sëriñ Muntaxa Mbacke Bachir bi mu ñëwee doon xalifa yee salaat ndigal loolu bam ko tàmbalee ba léegi saasu su ne sëriñ bi mi ngi saytu liggéey bi ànd kook mbooleem taalibe yi ak njaboot gi ba keroog muy mat mu jébbal caabi xalifa général des mourides